voilà dem nañu gis population yi def nañu porte porte def nañu proximité dugg nañu kër yëpp bàyyi ñu benn kër sensibiliser leen pour ñu ñëw voter wii ndax constitution bu baax la président jox population yi pour ñu voter oui pour renforcer démocratie ci Sénégal donc def nañu sillonné nañu toutes les rues les artères de Thiès les ruelles de Thiès bàyyiwuñu fenn ah ci lu ñu population yi woon ak accueil bi ñu woon ah am nañu yaakaar daal di ñaan suñu borom nag mooy ñun dam bii bi gagné massivement. nit euh, di wëy di di xëy na ñu somme en début de ak yooyu xëy na fii après midi bi dinañ jóg ñëw xam nga Sénégal yi am nañ temps dañu jël seen temps xëy na mais je pense que fii ak après midi bi balaa bureau yi tëj dina ñëw massivement voté en tout cas ñun en ce qui nous concerne dinañ mettre les moyens la logistique nécessaire pour ñu ñëw voté yi